fukki waxtoog ak benn jot fii ci buntu hôtel de ville bu Thilmakha Mbakol monsieur le maire Cheikh Ibra Ndiaye joxante woon dig daje ak 63 villages yëpp fii ci hôtel de ville bu Thilmakha Mbakol liggéey bu am solo bi nga xam ne monsieur le maire Cheikh Ibra mi ngi koy amal ci Thilmakha li ko wër tax ci ay campagne am mu diggee woon diggante yu am solo ak li nga xam ne mooy aw askanam xam ngeen nag feeraay bii nga xam ne moo nekk Thilmakha Mbakol biir ciil maxa mbaakool roq yeeg ruqaat yi ñoom day ñoo koy setal ngir gën a mën a taaral lii nga xam ne mooy ciil maxa mbaakool waaye nag ñu xalaat ni daal lenn ci entrée yi nga xam ne booy dugg biir ciil mbaakool dafa bari lool mbalit muy wàllum set ak setal journée bu am solo Cheikh Ibra Ndiaye nag joxante woon dig daje ak mbooleem askan wi tax nag cat goo gii nga xam ne ay entrée la yoo xam te booy dugg ciil mbalit mu baree bari moo lay dalal tax monsieur maire ni daal ginnaaw seetal nañu dëkk bi nañu gën a yaatal li nga xam ne mooy bitti dëkk bi ngir kuy dugg ci dëkk bi xam ni daal liggéey bi door na tax nag ñu doore liggéey bu am solo boobu ci buntu hôtel de ville bu Thilmakha Mbakol bii. mu nekk journée boo xam ni cleaning day lañ ko tuddee ci initiative bu président de la république mu nekk ñun suñ première édition li ci remercier encore partenaires yi nga xamante ni ñoo ci jàpp. mooy waa UCG vraiment seen taxawaay rafet na les entreprises comme Exbat mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci stade bi les entreprises Exbat Baydam Global Business C2C EGAS et l' entreprise de mon jeune frère Tabaski ñoom ñëpp ñoom ñoo jàpp ci bis bi ba gis ngeen dëkk bi ni mu setee vraiment mu amoon ay sën yu bari ci biir dëkk bi am ay xeer yoo xam daanaka kenn xamul lu mu ne ci ay puutit yooyu yëpp dégagé nañu ko pour que après dëkk bi mën a set ñu mën a continuer maintenir cetaay googu ba habituellement wala régulièrement ñuy faral di def se journées de set setal feeraay boobu yi nag seen liggéey bu am solo bi ak ñenn ci askan wi nga xam ne génnoon nañ ngir jàpp ci liggéey bu am solo boobu yi taxul nag kii di monsieur le maire Cheikh Ibrahima Ndiaye yem foofu fii ndax fii nga xam ne mooy poste de santé bu diin teg nan li nga xam ne mooy xeer wu njëkk wi ndax loolu yi dafa bokkoon ci li nga xam ne ay digale woon ci campagne bi nga xam te ni bi muy laaj baatu askan bi loolu yi la leen waxoon liggéey boobu yi nag door na fii ci diiñ waaye nag Cheikh Ibrahima Ndiaye Moussa le maire yemul foofu fii liggéey bu am solo bi nga xam te moom mooy jóge diiñ jàll ba fi nga xam ne mooy yeew loolu yi nag buñ ko xaymaa mi ngi nekk huit kilomètres six cent liggéey boobu yi nag war toll ci enveloppe cent quarante sept millions monsieur le maire Cheikh Ibrahima Ndiaye nag teg na xeer wu njëkk woow yi ngir jëmmal li nga xam ti moom mooy liggéey boobu bii poste de santé bii nga xam ni itam nag moom lañ fas yéene def fii nga xam te moom mooy diiñ mi ngi toll nag ci 30 millions Cheikh Ibrahima Ndiaye nag di wax ni nit nag su amee ab jaaruwaay amu fajuwaay bu yàlla ñëwee rek ab dundam dina gën a jàppandi tax nag mu ni loolu yi nag yitteem la ndax askan wi loolu leen ko sasoon te moom loolu la waxoon ak askan wi Cheikh Ibrahima Ndiaye mii di monsieur le maire de moo ne bi ko faleeg léegi yi mu yàgg lool ci luy toll juróomi weer jàpp juróom benn weer rek lay toll waaye nag mu fas yéene def liggéey bu am solo Cheikh Ibrahima Ndiaye nag gis ni nit kët daa war a fal jëf te folli wax ndax maane fu mu nekk moo ni fa dara te moom mii nag di Cheikh Ibrahima Ndiaye moo ni leen woon bu ngeen ma falee dinaa leen defal ngeen gis diine ak waa yeew de ñoom gis na ni la leen Cheikh Ibrahima Ndiaye waxoon daal ma nga maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ak ndax dëkk bi lu si waay def lu baax nan ko nan ko def te muy waa dëkk bi waaw noonu ko bëggee rek nga laa ko bëgg ku leen jublu rek def lool sax. lool d'accord nañ baax. lu baax rek ngeen fi bëgg. lu baax li ngeen si bëgg mun waa dëkk bépp di sant nag monsieur le maire ak sous-préfet ak ñi mu àndal ñëpp. ak monsieur Ndaw mi nga xam ne bam nu dalee jàppale yàgg na man daal kontaan naa ba ngeen waxee rek ne diñ lañ koy def sama xol dafa sedd guy. ndax lu ngeen def rek noonu askan wi ngeen ko defar te man bëgguma ci dara lu dul xale yi rek man moom moo ma ci ñor ndax bu ma jógee lu guddi guddi dan may yee ma dem cil ma su ma sañoon nag giñ gi laa yem kontaan naa xanaa nag liggéey bi set di ko rafetlu nag saa yi ma dikkee cil ma rek fekk xale yi liggéey ma kontaan lool di la sant rek ma di la gërëm ginnaaw bi ñu jógee foofu nga xam mooy diiñ ak liggéey bu am solo boobu nga xam Cheikh Ibrahima Ndiaye ma ngi ko doon jëmmal foofu yi nga xam ne mooy diwaanu diiñ monsieur le maire Cheikh Ibrahima Ndiaye nag yemul foofii ndax xam nga ni réew moo gis muy dem santé ak sport lu ca am solo la tax nag monsieur le maire Cheikh Ibrahima Ndiaye ñëw fii ci stade bi nga xam te ni mooy stade bi nga xam ne mooy bu Thiel ma xambaakool stade bi nag doorteel yàggoon na lool 2016 jàpp 2017 ba tey stade bi demul cëng dikkul mbaylaar waaye nag Cheikh Ibrahima Ndiaye ci pastéefam fonk gi mu fonk ndaw ak respecté gi mu respecte ay kàddoom tax mu ak délégation bu am solo ñëw visiter li nga xam di moom mooy stade bi moonte stade boobu yi dey xam nga ni sax cilmaxa football képp lañu baaxoo woon di am ci tàggatukaay waaye nag monsieur le maire se Ibrahima Ndiaye daan ni stade bii bu paree dina am handball waaye dina am itam li nga xam mooy basketball ba tax nag monsieur le maire Cheikh Ibrahima Ndiaye wax ni loolu yi lépp nag ak li nga xam ne mooy jëmmal stade bii nga xam ni mooy stade bi nekk ci cilmaxa mbaakool mu ni wax ni sax liggéey boobu ñu ngi koy xayma ci cent millions yu teg tuuti waaye nag Cheikh Ibrahima njaay bi nu ko laajee ni ko ndaxam nawetaan yii di ñëw fii la nii fubale lii nga xam te moom mooy nawetaan yi am ci Mbakool dañuy loolu du mën a ne waaye nag liggéey bi ni liggéey incha allahu rabi jëmee ko ci ndaw ñi baaxoon na ni def coupe li nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Ndiaye te booba nekkagunu meer tey nag bi nu nekkee maire coupe Cheikh Ibrahima Ndiaye ak coupe maire dañ koy boole mu nekk benn. bu yàlla defee nañu football ba ba ca final ba ci leen fas yéene ubbi yi nga xam ne moom mooy stade bi ngir gën koo jëmmal mu sant nag mbooleem ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk nekk ci Thilmakha Mbakol di profito di def lancement wu achèvement wu travaux stade bi stade bi nag euh, ñi ngi ko commencé 2016 euh, ñi ngi ci sant au passage la frère Serigne Bassirou Gueye ci ay relation ci la fexe ba AGETIP may ñu stade bi depuis 2016 2017 2018 lañ fi def lii travaux yi arrêté woon ñun bi ñu ñëwee bien avant même ñuy ñëw euh, ndaw ñi jàmbat nañ ñu fu nuy fubale wa fu ñuy defee seeni sport ñu promettre woon leen ne leen bis bu ñu askan wi dénkee baatu askan wi dinañu fexe ba édition yii di ñëw muy nawetaan bii di ñëw dinañ ko fubale ci biir. stade bi ci loolu ci la ñu demee gis autorités yi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéey bi mel ni AGETIP ñu ngi koy remercier au passage le directeur mu jàpp ci nag taxaw ci bu baax ne léegi dina fexe ba travaux yi démarré waat moo moo tax ngeen gis entreprise bi nekk fi mu instruire ko muy euh, Exbat donc le directeur général Ngagne mbay qui est absent mais ñi ngi déggante léegi mi ngi koy remercier moom itam ci taxawaayam di ko féliciter di remercier équipe bi nga xamante ni ñoom ngeen fi fekk ñoom moom moo leen fi teg di wax nii rek stade bi stade bu am solo la ci Thilmakha ndax dana am football am na fu ñu mën a defee basketball am na fu ñu mën a defee handball donc mu nekk ay discipline yoo xamante ni xëy na cilmaxa xamuñu ko woon Thilmakha football rek lañ xamoon. mais bu ñu demee ba war fi def euh, euh, basket di fi def handball mu nekk une innovation boo xam ni bëgg nañu bu ñu demee ba stade bi fonctionnel xale yi di ci jouer discipline yooyu yëpp tout récemment rek jot nañu am nañu fi benn visitu euh, ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc waa inspection de la jeunesse ñoom ñu leen fi envoyé pour que ñu saytu xale yi bëgg a def Euh, discipline yooyu lu mel ni basket handball ñoom ñu ñëw pour encadrer leen nga xam ni dinañ leen mën a encadrer ci discipline yooyu mu nekk vraiment une innovation ci Thilmakha donc ñu ngi remercier au passage vraiment le ministre de sports ci taxawaayam ak vision bi mu am pour vraiment vulgariser sport bi ba dëkk yeeg ruq-ruqaat yëpp mën ci joti di wax ni enveloppe bi mi ngi toll ci cent millions bi ñu ko commencé peut-être xam naa dina am ay révision de prix parce que taxawaay bi boobu ak léegi yàgg na environ peut-être xam naa dina dem ba cent vingt cent cinquante millions ci loolu laa mujjee discuter ak entrepreneur bi. donc mu nekk vraiment benn joyau boo xam ni xale yi ñu ngi koy xaar yàkkamti nañu ko ñu ngi leen di dalal seen xel di leen xamal ni ensemble dinañu fi fubal nawetaan incha allah ci prochaine édition yi ñu jëm. dañ daan def coupe Cheikh Ibra. boo xam dañ ko daan def tey yàlla dogal Cheikh Ibra nekk le maire donc dañu bëgg a boole coupe Cheikh Ibra boobu ak coupe maire mu nekk benn nga xam ne dafay nekk coupe maire ñu def ko ci anam boo xamante ni ne dafay dafay màgg donc du bokk ak coupe maire yi ñu daan gis parce que day am coupe Cheikh Ibra coupe maire ñu boole lépp mu doon benn yéene ji ñu am mooy final bi ñu joué ko fii ci stade bi defaale inauguration bi. xam ni boobaa dañuy woo askan wi yëpp 63 villages yëpp ñu ñëw ñu inauguré ko joué wala coupe ku ne xam na ni Sénégal dafa jëm ci ay événements sportifs yu am solo muy JO euh, ji mooy les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 lañ ko war a def mission boobu ma lay wax inspection de la euh, du sport ñoo ko fi envoyé woon seen euh, rôle moo nekkoon ñëw pour tàggat ndaw ñi ba nga xamante dinañ fi génne ay ay star ay talent yoo xam ne dinañ leen mën a présenté ñu bokk ci jeux yooyu donc mu nekk lu am solo kon stade bi pare ba discipline yooyu ñu mën ko fi def d'ici 2026 ñu mën fi génne ay nit ñoo xam ne dinañ mën a participer ci loolu loolu itam defe naa bokk na ci solo si nga xamante ni moo nekkoon kii bi. Sibra Ndiaye sax de yokkaale na ci doléance ngir gën a ñaax askanu Sénégal rawatina gouvernement bu Sénégal. ñu bàyyi xel bu baax a baax ginnaaw bi ñu defee piste bi nga xam ne moo jógee Jurbel Ndindi nan taxaw bu baax itam ci Ndindi Mbakol ndax diggante Cilmaxa Mbaakool ak fii nga xam ne mooy Jurbel 40 kilomètres képp lay doon kon yoon woow wi daal bu sotti woon dina gën a dimbali bu baax ñi nga xam ne ñoo dëkkee askan wi foofii wàllum santé ba tey moonte de Cheikh Ibrahima Ndiaye sax yemul foofu yi nga xam te ni moom mooy teg premier pierre foofu rek nga xam ne moom mooy diiñ ndax xam ngeen ni poste de santé bi nga xam ne mooy Kër jama day ñoom gis nañ seen bopp ci ndoorteelu liggéey bi nga xam te ni moom la ñu jox monsieur le tem toll rek ci lu tolloog juróomi weer ndax Kër Madiama day am nañ poste de santé bi ñu ko amee nag day dimbaliwaale bu baax fi nga xam ne moom mooy caafura Kër Moustapha ak fi nga xam ne moom mooy Boyo ndax ñoom kat daanañ sonn lool ci wàllum paju moo tax nag lii nga xam te mooy poste de santé mi nga xam moo nekk Kër Madiama di dimbaliwaale bu baax ñi nga xam ñoo dëkkee gox boob yi bi nu ko laajee nag lan mooy cible ba tax ñu def ko loolu mu ni danoo gis ni daal ndimbal na ca fekk loxol borom ndax danoo gis ni ñooñi bu nu amee loolu yi dina gën a dimbali bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy askan wi féete foofii ngir gën a mën a faju Cheikh Ibrahima Ndiaye nag di joxanteeg ñoom dig daje ndax daal nee na li ci kanam raw libat nit nag su la joxee ndékki su la diggee añ war nga koo gëm tax nag monsieur le maire Cheikh Ibrahima di wax ni mi ngi tàllal loxo ñépp ñu profité lancé waale ci nag ay travaux yoo xam ni commune bi euh, dañu jàppoon def ko ci balay fin d'année bi lu ci mel ni poste de santé bu Digne dont le coût est à trente millions bokk na ci travaux yi la piste Thilmakha Digne Yeew distant de huit kilomètres six cents bokk na aussi ci travaux yi ñu lancé donc moom itam coût bi mi ngi toll ci cent quarante sept millions euh, les travaux d'achèvement du stade municipal moom it bokk na ci travaux yi nga xam ne tey lancé nañ ko fii ci Thilmakha coût bi nekk ci cent vingt entre cent vingt et cent trente millions euh, logement wu ICP bi jaar nañ fa léegi moom it bokk na ci travaux yi parce que ku ne gis na situation bi nga xam ne moom la dëkkee war nañ fa defaraat beneen logement bu bees ak fii ñu nekk muy euh, hôtel municipal bi travaux yi mi ngi fii lancé nañu ko moom it commencé nañu defaat réhabilitation hôtel de ville bi ak benn maison de l' émergence boo xam ni waa Palam ñoom ñoo nu ko jox. Mm, Palam nag benn programme la bu nekk ci ministère de la femme mu nekk euh, benn maison de l' émergence bu ñu war a defar fii. moom it lancé nañu ko officiellement ci travaux yi. programme yooyu day boo xoolee bokk na ci travaux yu bari yi yëpp ma la limal ni ñu ngi ko war a defaraat ci Thilmakha loolu yëpp liñ ci jublu mooy gën a taaral dëkk bi gën a doter commune bi ay infrastructures yoo xam ne dina nekk infrastructure yu mucc ayib. lu mel ni maison de la de l'émergence loolu defe naa c'est une première lu mel ni euh, stade municipal. loolu aussi c' est une vraiment grande innovation pour Thilmakha yenn villages yi euh, daanaka yu ci bëri amuñu village amuñu courant du moins Thilmakha 63 villages la daanaka fukki dëkk ak ñaari ñoo am courant ci wàllu woowu ñun jox nañ ci ay jéego di ci remercier au passage le directeur du PUDC tout récemment rek may nañu cinq villages yoo xam ne war nañ ko électrifier entreprise bi notifié nañ ko pour mu commencer travaux yi ñëw na fi déjà ba def les études ñu ngi jokkoo très prochainement xam naa dinañu commencer travaux yi kon ñu ngi koy remercier au passage loolu ab tàmbali la mais suñu euh, programme bi ñu am ci électrification rural mooy suñu mandat bala moo jeex ñu am 100 pour cent électrification pour tous les villages. wàllu désenclavement aussi ñi ngi ci dox boo xoolee la piste Thilmakha Ndindi. nekk na une doléance boo xam ni vraiment ñi ñu soxla ko parce que fii ba Diourbel c'est 40 kilomètres donc bu ndindi te defaruñu ndindi cilmaxa du am sens ci loolu def nañ ci ay jéego ba am nañ yaakaar ni loolu itam dinañ ci taxaw ba waaw mooy yoonu caafura wi cilmaxa ndindi mooy jaar biir caafura dem cilmaxa donc boo ko defee dafay désenclaver village yooyu yëpp nekk ci gox boobu lu mel ni ay caafura lu mel ni ay ñaxal kër ma jama lu mel ni ay kër mustaf lu mel ni ay kër ma ñaaw dëkk yooyu da nekk dëkk yu mag yoo xam ne pour ñu ñëw Cilmaxa wala ñu dem dindi day difficile mm-hmm. mais piste boobu tey bu ñu ko réaliser woon dina désengorger waat bu baax. àll boobu yëpp te loolu aussi ñu ngi ciy interpeller état ak vraiment AGEROUTE ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a defar seen route parce que c'est une route classée donc ñu ngi koy interpeller def nañ les formalité démarches yi war a def yëpp def nañ ko foofu pour que vraiment ñu fexe ba tali boobu ñu defar ko loolu bokk na ci suñu programme vraiment ci désenclavement. nag notable dëkk bi di Serigne Moustapha Diop mi nga xam ne mooy chef de village bu Thilmakha Mbakol itam ñëw na indi ay kàddu cantam ak i ngërëm jëmee ko ci seen doom ji ndax daa gis ne daal ñi fi nekkoon dem nañ waaye demuñu. ndax ñi fi nekk seen doom lan man nag ma ñëw fa en tant que chef de village lii ñuy def ma waroon koo def waaye maa koy def ndax samay doom a koy def kon man it danaa taxaw wan leen ne li ngeen di def lu ma ñor la lu ma neex la lu lu ma rafetlu la lu may ñaan yàlla mu sax la ñu àndandoo daal rafetal seen diggante rafetal ñëpp rafetal seen diggante ñi bokk néeg bu ñuy fanaan sax bokkuñu fu ñuy xëy ku ne day xëy seeti lu mu yaakaar ne mën na ko jariñ waaye nag bu ñu tasee na lépp rafet ne kenn ku ne fas ci xolam ni man de li may wut su ma ko amee jariñ ci ñi des loolu laay naa si ñëpp ñu ñëpp rafetal seen diggante rafetal seen njort ku ne ku ne rafetal njort ci morom ja xam ni damaa bëgg a tabax lii kii dikk damaa bëgg tabax lii bëgg naa tabax lii nga xam ne kon ñoom ñëpp den deese nañ ci benn initiative lu ñaaw waru faa am ku ne la ko ca jàll eh, eh, jagleel na ñaan yàlla barkeel mu jig ko jig mbooloo mu ñépp bu ko defee daam dina Sadio Kano man nag am naa sas wu rëy parce que sas yi mooy chef du village ci ma xaw sas la wante nag ñu tase ñee ci ëpp yaa leen mag aw sas la ñi ci ëpp yaa leen jur aw sas la te loolu la yàlla def ci dëkk bi. xanaa kontaan ndax xam nga li am solo mooy dem nañ fi 22 sax mu 24 ans jóge fii ñu ñëw fi li may ñaan mooy lu ñu fi def lu ñu fi waroon def defuñ ko ñoom ñu def ko ndax looloo li am solo ndax dama wax naa ko bis benn waay ma ne ko boo nee ci gaal El Hadj daana ko wax boo nee da ngay ñaan gaan nga mucc. waaye boo naan naa mucc man bu gaal ga ne kenn du la ci te mucc kon nag nan ñaan ñun ñëpp mu dox ndax loolu mooy am solo kii ko yari nag wax dëgg suñu doom ñu ko bay meer doo de suñu doom xam naa ne lépp luñ ci xam ci meer te koo xam moom bu ko laajee daan ci wax oh, Cheikh Ibrahima moom wax dëgg am na ci yaakaar ndax am na ci moom sax yaakaar ndax ba mu juddoo yaakaar naa ne jógu ci sunuy loxo di sunu doom di sunu lépp seen way jur ak suñuy waajur ñoo daan ànd baayam ak suñuy mag ñooy ànd moom mu ànd ak suñuy doom ak suñuy xale kon nag li ñuy ñaan mooy yéen ñëpp ñu ànd ak ngeen jàppale ko ndax li am solo mooy cilmaxa rek nan jiital cilmaxa rek teg door see teg lu ñu si teg kon loolu xasee am nga yor ko ànd ak góor yi ngeen ànd yëpp lu des ndax man de wax dëgg yàlla nun maak ay dara wax dëgg nit ñi yor ko ñoo xam ne buñ bëggee dem ci ñoom dem ñoom bu jigéen ñëw ci nun ñëw solo ay dara daa wax ne nit ki nga àndul bul teg taxas seen diggante da nga koy dindi ba mu neex ndax saa ba bëggee dox ñëw boo bëggee dox dem te loolu mooy li am solo. ci maxaa ngi nii benn bopp lañ kenn mënuñoo xarñaar lii sama wajur yi wax léegi loolu lay reprendre Cheikh Ibrahima yi képp ku xool ci moom doo tooñ kenn doo ñaawal kenn ndax xam na ni yàlla mooy fale ndax li mu bëgg. ñi ko bëggoon bëri na mais yàlla suñ borom ci ay loxoom la ko teg bi ko yàlla tegee ci ay loxoom nag ndamoowu ko da koo delloo rek ci commune bi ndax xam na ni cilmaxaa ko tax a jóg pour luy développer cilmaxa ni ko daam waxe ni ñoom suñu sañoon bu ñu fi nekkee lépp loo xam ne matale ko ñu ngi ñaanal yàlla ñu matale ko yàlla na yàlla def loolu bu bu boobaa sunu ndam la seen ndam la ndax nit kat lu sa doom def mel na ni yaa ko def Pa Moustapha wax na ko léegi lépp lu sa doom réalisé mel na ni yow yaa ko réalisé ñuy ñaan nag commune bi lii projet yi maire am ci cinquant yi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla matale mayu matale ñu eggale ko eggale suñu yéene ndax bu boobaa dinañ eggale suñu yéene eggale waale seen yéene yéen ñii fi nekkoon nga xam ne ñun ñoo leen fi remplacer comme ni ngeen ko waxee rek ni ngeen bëggee woon mu réaliser wu seen yaakaar jooju tasul ndax mbir mi yoon la rek day continuer da ngeen a dem ba yàgg ngeen ni nii seeni doom jël ñun dañuy dem ba yàgg nu nii suñuy rakk jël ainsi de suite kon lépp day dellu ci cilmax ñuy ñaan yàlla ni mu rafete nii na gën di rafete noonu rek ginnaaw bu ñu nuyoo suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ci bopp bi Baye Tafa xam waajur la ci ñun lépp la ci ñun yàlla dogal tey mu nekk chef de village Thilmakha mu def lu rëy déplacé wu ci naaju tàng bi ñëw ànd ak suñu baay baay daam ci waxam wax na lu wér ñun ak ñoom benn lañ dafa yàgg ca maam yàlla woon ba tey mu nekk suñu baay ci lu wér taxawuñu taxawaayu bi baay di taxawu doom kon ñoom bu ñu déplacé woo ñëw rëy na lool ci ñun ndax bu ñu toogoon fa seen kër def ñaan digal nu ne ñu dem leen ngeen def liggéey bi dañuy ñëw rek def ko waaye ñu ñëw ànd ak ñun bis bi ànd ak ñun euh, liggéey bi dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax a baax. comme ni ko bëggee waxee rek dañoo liggéey liggéey bu mucc ayib ci commune bi am fu nu yem. ñun foofu rek la ñuy tàmbalee ngir jëmale lépp ci kanam keneen bu ñëwee def noonu su ko defee defe naa loolu mooy continuité tey it nag loolu mooy état tey bari na projet yu bari yu ñu lim fii yu ci bari tey ci ñoom ñii la jaar xëy na yàlla mooy dogal xëy na ñoo war a yeggale wala itam ñoo war a tàmbalee ñoom fa nu yemoon keneen mën naa yeggale wala ñun ñu yeggale waaye suñu yéene mooy ñu yeggale waaye lu ci bari jaar na ci seen loxo kon loolu ci seen taxawaay la ak seen matuwaay ñu ngi leen di si sant bu baax di vraiment remercier équipe bi ñu ko bokk bokkaloon liggéey bi yëpp di sant nag encore une fois le sous-préfet Daouda Mbaye ak son adjoint Ismaïla si lii mooy cilmaxa tey cilmaxa bone ne njoobeen ñi ndongo jeex na te ñoom ñëpp ñu ngi nii kon macha allah yal na yàlla yàggal ànd bi yàlla yàlla yàggal diggante bi bay daam ñu ngi lay gën a dénk suñu bopp comme ni ma koy waxee Baye Tafa ñu ngi leen dénk suñ bopp seeni doom lan seeni ndaw lan du ma tàyyi di ko wax gis nga Baye daa mii moom moo ñu jàngal politique ñun suñ première sorti ci ay politique moom mii la ñu àndal wala boog moom mii moo ñu teg aw yoon kon tey fu ñu mën a toll ak fu mën di ne dinañ ko ko di wax di ko ci jaajëfal nag. sant bu baax itam les partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci bis bi ku ci mel ni UCG seen taxawaay rafet na machines yi fi nekk yëpp daanaka ñoom ñoo ko indi ak peel bi di sant. entreprise yi nga xamante ni jàpp nañu ci liggéey bi indi seen i matériel lu ci mel ni Baydam Global Business ay Exbat ay Kayor Construction et Consultance Pape Fall Egas Basirou Diop Bonilé ak Baye Siré effectivement ñi ngi koy sant bu baax au passage moom it tracteur am mi ngi fi di sant aussi ñeneen ñi nga xamante ni ne xëy na yoruñu ay entreprise waaye si ay bonne volonté la ñoo xam ne dëkk bi moo leen ñor lu mel ni Sidi Diop ndox mi ñu naan yëpp daanaka moo ko fi jënd ñu ngi koy sant bu baax di sant le procureur Serigne Bassirou Gueye di sant mon ami et frère Cheikh Ndongo di sant comme ni ma ko waxee Bassirou Diop Bonilé Cheikh Diop sa Mbuub euh, Saliou Diop euh, di moins Saliou fay mboolem ñi nga xamante daal jàpp nañ ci bis bi ba bis bi taaru nii Modou Matar Diop aussi ñu ngi koy sant bu baax euh, Mam Mor Ndongo di sant El Hadj Modou Sylla ñoom ñëpp jàpp nañ ci bis bi loolu mooy xamal ni rek cilmaxa benn bopp lañ. et Tabaski Fall macha allah depuis boobaak léegi bokk naa ne defe naa ne moo bokk na ci ñi nga xam ñoo njëkk a joxe seen contribution daf ko dégg rek ne négal man maay tàmbali njëkk a joxe kooku moom nekk koo xam ne macha allah c'est notre frère ñu ngi koy sant daal di sant ñëpp di sant nag ñi nga xamante ni ne ñooy suñu bokk yi nga xam ñoom lañ bokkal ci Cilmaxa ndax génn bi nu génn tey macha allah xale yi kenn desul ñëpp ñëw nañ dëkk bi boo ñëwee fii ñu tàmbali woon rek gis nga ni mu setee te wàccagunu ñu ngi ci waar yi fi ne nii bu ñu paree dañuy dellu foofu ci ñoom ànd ak ñoom liggéey bi ba keroog dëkk bi di di set loolu nag bu ñu koy def suñu baay yi lañ koy defal ndax moom mii comme ni ko waxee lu ñu def ci dëkk bi rek moom lañ ko defal ndax ku fi ñëw tey jii ah moo lay dalal moo lay teeru kon Baye Tafa ñu ngi lay ñaan nga dolli ñaan yàlla yokk kattan gi yàlla defal nu tawféex ba li ñu yéene ci cilmaxa ñu def ko eh, sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp góor ak jigéen mag ndaw kenn nag nettiwul sa morom bis bii ndax am solo gi mu am solo ci liggéey bu am solo bi nga xam te ni ñi ngi ko doon defal mbaakool gépp waaye nag commencé woon ko fii nga xam te moom mooy ciil ma xam mu nekkoon daal lu am solo loo xam si ni histoire dina ko bind ndax monsieur le maire Cheikh Ibrahima Ndiaye lam waxante woon ak askanam ci lu matul juróom benn weer lu baree bari mi ngi koy commencé réaliser askan wi di ci teg bat kon nag mu nekk lu ama am solo